équipe nationale tey moom moo doon joué Sadio Mané moom penalty yi kañ koy dugal ah hey hey respect pour capitaine de Cheikh Konaté mais Aliou bu aayoon ñaari capitaine la koy jox waa Cheikhou Zour yor ñaar see de bu nekkee entraîneur damay ragal mu jël ñeenti yow entraîneur bu ñuy wax naan nii yii di kii di yëngu et Aliou Cissé moom man Aliou coupe bu ñëwagul Aliou eh, kii Mbaye Niang jéewul nawetaan bu jéewoon nawetaan jéew ay ñaari tali mbaa Liberté 4 mbaa équipe yu ay xandaalu yooyu ba xale yu jigéen ña toog ca kaw tribune ba ba yuuxu seen way woowu naan koo dugal dugal koo dugal mbay ba tey dugalagul ci 4 mars xam ngeen kal laa gën a bëgg ci équipe nationale ah ah, ah eh, eh eh bu leen ma xamoo leen li nekk sama xol samay directeur rek samay directrice ñoo toog fii ah Krépin ku leen wax Krépin laa gën a bëgg ci équipe bi ku leen ko wax xam nga kan laa nduróol ci équipe bi man Sada Thioub eh eh eh Sada nañ wax ak moom de Sada buy daw bu yaboon na def nii de bopp we bopp sa bopp Sada Thioub bi yéen buy daw di def dana dana mës a daanu de eh Sada Sada Thioub diis na ci zone et félicitations à l'équipe nationale donc c'était juste pour wax leen félicitations donc c'est très normal na ñëpp nekk ci ginnaw gaynde yi ñu accompagner leen coupe bi moom ren day ñëw incha allah El Hadj ba tey waxagul El Hadj Diouf moom day woote ay conférence de presse lu yoonam nekkul El Hadj jékki-jékki rek daal di woote conférence de presse yow yow waaw Aliou <laughs> ak sonal Aliou Cissé Aliou ak am fulla du taal portable am du wuy SMS bu rombee jour yam nekkoon en buñ ko ne Aliou Cissé danaan leen waaw yéen xàmme naa leen de boo yàlla na jàmmam yàgg yee kontaan naa ci bu baax a baax a baax mais ki li muy def ni yow mais ki la lay def ni eh pistolet la génn fii eh Tamba eh, waaw waaw bëgg naa loolu sécurité bi bu mu yéegaat kii bu mu yéegaat de sécurité bi bu de